waxaat ne bépp président bu mën a toog ëllëg da fexe ba lépp luy soxla askan wi ci wàllu santé wàllu éducation wàllu développement ak wàllu mant doon nga jàppale ci askan askanu Sénégal sonn nañ AS mi ngi wax ne ba kii fu mën ëllëg di président na fexe ba valeur yi ni mu yàqoo jikko ni mu yàqoo maanaam maanaam maanaam culture bi ñu àbbi léegi indi ko ak civilisation yi indi film yu bees yi am ci réew mi wax lu la neex maanaam euh, valeurs yi yàqu ñu ngi ñaan bépp président bu fi toog ëllëg na nga dimbali ay yes ci lu mel noonu ndax ab bi cosaan ab bi culture ab bi loolu day yàq ay réew te Sénégal wax dëgg yàlla ci réew réewum diine la ñu xamee réewum ngor réewum mu baax la ñu xamee waaye li ñu gis fan yi ak at yi wax dëgg yàlla nekk na lu doy waar kon AES mi ngi tëju fa ay kàddam di wax ne yàlla ñu yàlla defal eh, ñu ñu àgg ci élection ak jàmm ak salaam dugg ci bis naan génn ci alhamdulilah Sénégal delluwaat jàmm ak salaam lii mooy kàddu yi AIS doon yëkkati wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Mbacke. ñuy ñaan yàlla ñu tal ko te fekk ko ba déwén nag jàmm incha allah. te nii ko sëriñ bi waxee rek. état gestu bu baax a baax kuréel gu mel ni AIS ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo yëngu ci.